jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne mbokk bu ngeen gisee li tax ñu gëj a gisante wala ñu ñu gëj a waxtaan ak yéen ci làmb ak programme làmb mooy balaa bi nga xamante ni wàcc na ci àdduna bi yëpp muy coronavirus bi nga xamante ni ñu ngi koy dégg ci réew àdduna bi yëpp euh, ñuy ñaan suñu borom moom mi nga xamante ne lu mu saafara mu am saafara ñu ngi koy ñaa yàlla na ko suñu borom saafara defal ñu ci jàmm. musal ñu ci musal ci mboolem jullit ndax jàngoro bi moom doon na jàngoro boo xamante ni ah, xew na ci réew mu ne waaye ñu ngi ñaan yàlla na suñu borom moom mi nga xamante ne mooy faj mu faj ñi nga xamante ne dañoo tawat ñëpp ci jàngoro bi yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit ndax metti na lool lool rawatina suñu mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ci États-Unis ñiy nekk itali ñiy nekk France ñi nekk fépp ci àdduna nga xam ne fépp foo dem rek doomu sénégalais mu ngi fa tëdd ñu ngi ñaan ñoom ñëpp yàlla na suñu borom musal musal ci mboole mi doomu aadama ndax pël tey lañ ñëw dalal ngir waxtaan ak moom Baye Pël nag ma nga nekk ci États-Unis waaye ñëwam sax ci réew mi xamuñu kañ la ñëw waaye bëgg nañ cee waxtaan ak moom lépp ak jàngoro bi nu mu ko gisee ci États-Unis d'Amérique ak lu waral sabab bi ñëw bi ñu waxtaan ak Baye Pël Baye Pël maa ngi lay nuyu. jërëjëf jiri maa lay nuyu bu baax di di la sant di la gërëm ci teewaay bi nga teew fii ak bi di nuyu ñëpp daal comme li nga wax rek. càmm daal affaire yi moom bëri na métti na quoi mais ñu ngi ñaan suñu borom saafara mu gën a gaawee ku nekk delluwaat say activité quoi. ku xam Baye Peul xam ni semaine bii ñu weesu yaa ngi woon fële ci États-Unis nga ñëw ci réew mi kañ nga ñëw. non man nag ak nga xam lu ñuy wax tombé waral ay gaaf quoi man dama ñëw you know mu tombé ak samay vacances quoi ndax man jëndoon naa bi pendant six mois laa jëndoon bay doon préparé pour ñëw la 17 mais xam nga rek lu ñu wax daal tombé waral ay gaaf. mu ñëw far affaire yi demee noonu quoi mais maa ngi ñaanal sama xarit yëpp yi nekk foofu fële ca New York non di leen ñaanal yàlla daal feebar bi gaaw jeex bañ jëlwaat seen liggéey ndax ñoom ñëpp ñu ngi may woo fan yëpp ñu noonu ma fan yi liggéey ñu ngi tëju ma leen yàlla baax na xam yàlla saafara lépp daal yaa ku ne ñoom ñi nekk New York nan la ñuy dundee feebar bi ak activité yi nga xamante ne arrêté na ci ci réew mi nan ngeen koy dundee non neexul moom ndax you know ndax xam nga nit moom amoo dara lu liggéey quoi pour teral sa famille ak waa kër daal boo xëyee toogatoo liggéey day xaw a métti daal mais ñi ngi leen ñaanal yàlla mooy li may wax rek di ñaan affaire bi gaaw jeex ci réew yëpp ci àdduna bi ñëpp nekkaat ci jàmm ku nekk delluwaat sa liggéey géré waat daal waaw waaw. ñëw. man ñëw naa la 17. le 17 hmm, mooy ba la passé waaw. Hmm. di nuyu sama xarit mu Modou loo moom ma jël si aéroport def su bu rafet daal. Hmm. et maa ngi koy nuyu baax di ko ñaanal yàlla. lu mu bëgg suñu borom defal ko waaw. ku la xam xam la ci làmb mais dafa mel ni Baye Peul moom tekki na ngembam kenn du ko wax kenn du ko présenté réew mi ndax baypal Peul moom mii ma seet si nekkatul Baye Peul mbër Baye mbër la woon waaye mbër mu tekki ngembam. non lu tax nga wax loolu. tekki woo sama ngemb de man gaa yi ñoom a ragal ko xam rek. yee man moom moom gars yi ñoom a ragal moo tax xam rek. Mm-hmm. sama affaire du yomb daal. moo ku la xam-xam ne fi mu toll nii waajoo sax pour bëree pël yow tamit maa yooyu wax ñaata at ngi nii ngay ñëw Sénégal te mënoo sax am combat am bëreetoo quoi nañ nangu loolu. mais sànq rek maa ngi wax Fallou Ndiaye moom waxoon na ma boo ñëwee jox la avance sànq woo naa ko nga baal ma ci si mag la ma ñoo def benn émission bi nekk li TV sànq woo naa ko ci karamam ñu wax am lu wax maag moom nee na ma dina ma woo. par man làmb rek laa bëgg ndax làmb tey jii mun naa ne moom mu yóbbu fi ma nekk daal. lépp moom rek làmb la quoi mun ma ko bàyyee noonu bu ñu ma joxee combat mooy li may wax rek bu ñu ma joxee ma bëre bu ñu ma joxul ndax sax année bu ñëwee may wax ba woo télé yi damay wax ba a dee bu ñu ma joxee ma bëre bu ma jox tam ma dewaat dem liggéey rek ndax liggéey bi tamit yu sant yàlla bu baax a baax ñu si yor ñu bari waxoon lañ bokk bàyyi pël ñëw na waaye munoo wax a wax ba du ne damaa bëgg a bëre te xam na ni ku ko jox avance du bëre mais ñëw na pour wax ko pour lëndëmal euh, mbër yi jaxase promoteurs yi pour ñu ku nekk daw ñëw Baye Peul kan lañ ko war a wutal mais Baye Peul mii ma gis gis naa la sa États-Unis sax yaa ngi Modou Lo seen benn vidéo ngeen jàppante mais Peul xam nga ni wax dëgg nag xale yi moom fi mu toll nii neexaluñ la ci dara. waajal Modou bu ñu jàppante ma dëgg de sa man jeexal gu ma de gars yi maguma leen mag yu garaaw yooyu de non xale laa comme ñoom. gën ëpp ma ci doole su ma taxawee. ñëpp maa nëpp doole wut na yàlla yàlla xam na loolu mais xam nga rek mooy li may wax rek ak nga boo jugee fii tukki yu noow pour nga ñëwaat bërewaat day du yomb daal moo tax man ci booy ndaw yi xam ne ku ma si jàpp su ma defalee bagage dañu xam ne kii mi ngi fa mu yi ndaw yi nag waxuma mbër yi nga xam dañoo maase booy fël na sànq ma koy wax la men booy soq laa gën a soxla sax moom ñu wax joon léegi ma defal ko bagage du sa yàgg mu ngi ci contrat kooku moom fi mu toll nii tal na leneen ndax gàmmu gee lay laa la su bëggee may ko saas man maa jiitu ci làmb lu ma def defu ko moom bëre moom bëre pare nga sérieusement pour bëre. pël man moom wax dëgg wallaahi yaakaaruma ni bàyyi pël mi jël na décision bëre takk ngembam. wallaahi Aziz bu ma joxe combat ma bëre man soxla ma sa xaalis dama koy man bëgguma sa xaalis dama bëgg a woon Sénégalais yi ni fii dara fi li fi nekkoon lu gën a pire moo fi nekk bu ma joxee combat ngay xam li may wax lan la man sa waay you know lépp lu may wax dafa nekk ci man quoi bu doon nekkul ci man du ma ko wax ay feeñ ay feeñ cere yu jaraluma ko quoi mën naa ñëw fi toog sama jabar enjoy quoi yooyu eh, dafa nekk ci man bëgg naa bëre nañ ma jox mooy li may wax rek tout le temps buñ ma joxee ma bëri buñ ma joxul ma dem liggéey rek waaw. nan nga gisee làmb démb ak làmb tey parce que bi nga ciy nekk di daanaka bi nga ciy nekk léegi sax yàggul waaye yàgg na ci ku tukki nga dem bitim réew euh, làmb ji di dox nan nga gisee làmb. yaa làmb ji yee eh, doxoon ay jamono mais guddi ñu toll nag wax dëgg yàlla yu noo doxatul daal franchement wax dëgg yàlla xaw ma nag ci kan la ma ci promoteur yi la ma ci waa CNG bi la. non xaw ma ci bëri da ma nag mais doxul moom wax dëgg yàlla bu ñu waxee rek wax dëgg rek làmb doxul quoi ñun suñu jamono bi ñuy bëri promoteur dañu doon xëccoo dañoo lekk ay ñaari avance ñetti avance wër na yàlla ci benn saison nga gis benn promoteur da nga ñëw jox la avance wallahi asib mais léegi booy di bu ñuy bëri ay ticket leen jox xam demee ñun loolu suñu jamono amul woon boobu yee tax daal des na daal lu bëree bëri yee des na lu bëree bëri nga ci làmb ban combat moo la gën a marqué bi nga fi nekkulee gis combat boobu sa xel ñëwaat ci làmb nga gën a bëggaat làmb ban combat la. samay combat wala combat yi. combat yi am sa ginnaaw rek. yaa nga xamante ni am na sa ginnaaw. te eh, Modou Lo ma seen di paas na marqué na bu baax a baax. parce que ndam lu rëy li am ndam lu rëy la ak lu mu si nekkee roi des arènes yi non na ma daal tax na daal ma gën a bëggaat làmb. waaw marqué na ma. foo ko ak bi nga koy seetaan noo ko dundee. non boobu nag ma fekk sama liggéeykaay dama fekk fi may liggéey mais aw ma jàmm wër na alxuraan ma maa ngi koy ci YouTube bi mais damay sàcc ci xoos nag bu na gisee nga sa fan lay daax quoi mais mujjee bi sama benn booy moom ma woo gan automatiquement ne Modou Lo doon wax kay doon na ko mu daal ma laaj sama boos ma ko dama bëgg a dem ci duusi ma <laughs> mujjee dem pour xool affaire bi wóor na yàlla hmm. ye ma xool ko gis jëli bi ma kontaan lool te Modou Lo ñoo doorandoo ko ay ñoom Garga ay ñoom super jamono ñëpp ñoo bokk benn génération quoi ay xarit lañu woon you know ba léegi ay xarit lañ sax hmm. affaire bi daal neexoon na ma trop trop trop wax dëgg yàlla. bëgg nañoo waxtaan ci sa digganteeg Modou. yéen ñaar parce que bi mu ñëwee États-Unis euh, sa kër la nekkoon. Euh, yéen a nekkoon ndax gis naa Modou ba muy ngénte ji sax gis naa baatare bu rëy ba nga fa def seen diggante yéen ñaar lan la. moom Modou sama diggante moom wax naa ko waxati ko loolu Sénégal yaakaar naa ñëpp xam nañ ko Modou bi ñu nekk booy ñoo ànd ci mbapat yi loolu du tey quoi loolu yàgg na. ñooñu ñaan ku nekk dem ba mënul sa morom yi non tey jii suñu borom dimbal nañ ci loolu. saa kenn soxlaalu sa morom dara daal ñu ngi sant yàlla wér waaw di ñaan yàlla nag mu yokk daal Modou moom sama nit la Garga sama nit la super jamono ñoom Talla ñoom Maîtrise ñoom Dolfu ñoom Xaadim Gajaga ñoom daal suñuy nit lañ daal mais Modou moom dëgg yàlla dëgg rek moo neex yàlla man sama borom bi may dem rek bi gars yi may nekk rek énergie moom laa gën a féete woon daal kooku sama mag bu jigéen bi xam na ci dara moom tamit seen kër mu nekk daal nit ku baax nit ku bëgg nit wax dëgg yàlla bëggul ko metti dara mm. bi ma ñëwee fii moom ma jël si aéroport indi ma fii koñ bi ñëpp ñëw ka yëpp daf may yóbbu Lac Rose jëlal ma foofu hôtel pour une semaine lépp moo koy fay mu nekk nit ku baax daal yaa maa koy ñaanal yàlla bu baax roi des arènes bi mu tegal yàgg. combat bi mu jëm ak Ama ngay ñaanal mu dóor waa ji mu daam ci kàttanu yàlla. Euh, gis nga Modou Lo xam nga ni mu mel ci bëre xam nga capacité am ci làmb euh, Ama Baldé jot ngeen a laale gis nga keroog la ca xew jaan ba sax génn na bàyyi pol daw laxasu daw làqatu fu ne mu jaar fa. tey mu am Ama Baldé xale bi nga bëre ak bàyyi moom màgg tey bay bëre ki nga xamante ne mooy titre roi des arènes combat boobu noo ko gisee. non ah, Ama Baldé sànq maa wax non Ama Baldé bi may bëre moom jàppale bi ma am su ma ko amoon ma daan barke alxuraanu karim man Ama bi may bëre moom amoon tax dem rek mais moom Modou ñuy bëre ëpp jàppale eh, te Modou ko mun barke yàlla loolu ma ko wax. wax naa ko émission yu wax seen émission seen seen beneen booy bu nekk fee Amérique ATM. Mm-hmm. wax def nañ benn émission moom moo ko. mën na ko bis bu combat bi jeexee nga teg interview bi. Modou Lo da koy duma daan ko da koy daan loolu maa ko wax. foo ko teg ci mystique wala may jaral même bu fekkee nekkul ren. xam hmm. ñu mën mais bu dee nekkul bu dee déwén la man ñëw Sénégal combat boobu rek moom muy indi Modou daan ko ma ñibbiwaat wallahi azim trois jours may bàyyi ba samedi bi ma départ ñëw yegg si fii dimanche ngoon gi ma dem ba ñu daan ko su ma xëyee fajar ñibbiwaat. mais sa ñëw Sénégal lan la jotee combat bi parce que nga ñëw Sénégal teewul làmb ji ñoom ñaar ñooy des ci digg gi saar dama koy ñëw jàppale yëpp koy saar ñu duma ko daan ko ci kàttanu yàlla man ma nekkee jotee dafa am leneen lu muy gisee si moom xam naa loolu combat fu may jaral ma dagg bi ñëw wallahi azim ñu daan ko mu ñibbiwaat yaa ci kàttanu yàlla Ama Baldé ngeen xiif wala Modou loo nga bëgg mu mu mu waa bi ba ci kanam Modou lu mu dugg guddi ñu toll ma ciy dugg dama ciy toy xeet Mour maa moom ay xarit lañ daal am nay jamono nag xawoon nañu am ay kii nii mais retrouvé na waxtaan nañu ku nekk jox na sama may kàddu mu téye ko lu mu dugg guddi ñu toll mu ciy dugg dama ci sama combat la man Ama dañ koy duma daan ko ci kàttanu yàlla mënu ci dara waaw. noo gisee fi mu toll nii ci arène nationale bi ñëw ubbil promoteur yi biñ def jagleel ko làmb nga dem sa ginnaaw maanaam ba ngay bëree da doon wàllu yaani di wuti làmb tey ngeen dem nga bëree Ibamar. suba nga bëreeg yoof ginnaaw suba nga bëre feneen nga dem ba gis président de la république li mu leen defal muy arène nationale ban yëg-yëg nga ci am ak noo ko gisee. non arène nationale moom you know macha allah rafet na trop man nag mosu fa dem ñëw naa fi dem quoi. Hmm. maa ngi dégg gars yi di wax cahier de charge bi cahier de charge nekk mais fekkee dafa 10 ans maa ngi ñaan ñu teggil leen ko you know dafay combat yi mën a bëri xam nga rek booy yi mën a bëri daal man daal loolu laa ñaan quoi. xaw demaguma fa nag bëgg naa fa dem visiter xool moom mel mais ñaari année yi may ñëw yëpp you know du ma am temps pour dem fa su ma ñëw Sénégal moom fi yàgg quoi bi trois semaines laa bëggoon def mais ak feebar bi xëy na dinaa fi yàgg quoi yeah xam naa dinaa fa a dem nag bu dee bi nga fi nekk ay ay ay Aziz Ndiaye ñoo fi nekkoon Luc Nicolaï suñu papa Gaston ñoom ñooñu ñoo nekkoon ci làmp léegi gis nga ay Fallou Ndiaye ñëw na Assane Ndiaye Bawol production ñëw na ay jam production petit production ak yeneen xale yoo xamante ni fi mu toll nii ñu ngi ci làmb doon ay promoteur tëgg làmb noo gisee noonu. waaw ah, loolu macha allah rafet na di ñaan ñu jàppale booy mbëri rek ñoo xam ne ñoom seen doole jotu seen ginaaw daal. leen jox combat ñuy bëree bañ leen jox ay ticket quoi ndax man damay dégg léegi ñu naan xaw ma booy bu ñuy bëree nañ jox ay bloc quoi ay bloc ticket. Mm. loolu rafetul quoi ñu may sànq wax ci commencement yooyu nag promoteur yi yaa xam sax jox la avance man bi may bëre sama premier combat arène dama daan rek ñu joxoon ma avance may bëre waat sama deuxième combat naa joxoon ma benn avance na ma téer ba boo daan da ngay bëre waat ma daanaat bëre waat ñu non mais léegi dañuy def nii baaxul daal maa ngi ñaan ñu bàyyi loolu quoi jàppale booy mm-hmm. yeah fi mu toll nii li nga euh, li ñu bëgg a dund ci làmb tey ñu ne làmb ñëw na indi na beneen kii promoteur yi amuñu sponsor sponsor yi nan lañ mën a def bàyyi pël ba sponsor mën a ñëwaat ci làmb ba làmb teguwaat fi mu tegoon en tant que mbër boo xamante ni bë mu ngi mu ngi ci. <laughs> ok yaa xam ne laaj lu compliqué làmb de man daal li ma gisee daal pour man daal yaa xam naa moom président Alioune Sarr moom war a dem quoi ndax làmb boo ci nekkee dem ba say moromu doom taxaw di la xas. di la wax ay wax yoo xam ne rafetul moom gëm naa ne bu demee làmb ji na changé quoi na na bàyyi gars yi làmb ji dem daal dem seeti leneen comme comme moom nee na làmb ji amu ci dara na bàyyi rek loolu laa koy dégg quoi sama père la nag you know ku ma jox respect la mais su ma sañoon daal mu tekki ndomba ndonga ndomba tànkam ma dem quoi bàyyi làmb ja lan moo tax nga wax loolu da jàpp ni mënul yor làmb wala làmb fi mu tol nii dañ koo doy parce que Alioune Sarr bi muy yorlee làmb ba tey wolof daf na ku yokkul yaa wàññ jàpp naa ni yokk na ci làmb lu bare bare bare mais ku ku ñëpp tif li nga tooy Alioune Sarr bi muy jëlee sanction dafa métti quoi wax dëgg yàlla man dafa metti daal ndax am yoo xam ne rafetul daal sa sa xale rek yaakaar xale boo ko yoree bu defee daal dañ nga ko waxtaan ak moom mais dara du ne am rek nga jël sa changement rek taxaw ne lii mooy am non rafetul daal loolu laa wax père daal li ma sëñ daal moo gën balaa leen di fekk digganteem ak ñoo tax nga loolu ñëpp la digganteem ak arbitre lan moo la ci metti man wax dëgg yàlla man arbitre yi xam naa leen hmm. comme ni leen gars yi xamee mais ay gars yi baax lañ même Alioune Sarr tamit ku baax la mais sanction mu jël foofu dafa metti trop ñooñu làmb lañ yaakaar seen dund seen njaboot waroo xëy rek nga ay rajo naa leen men ni yow kon kooku su ma mën àdduna bi nu ñuy def war rafetul quoi boo demee nag gis nga boo nekkee ci benn affaire bay dem ba commencé dégg ay wax yu neexul bàyyil baa leen di fek man loolu laa koy conseillé daal na bàyyi làmb ji comme que nee na yor na clinique am xaw ma na dem gérer clinique am bàyyi gars yi seen làmb quoi na bàyyi daal moo gën rafet ci moom balaa muy dem boo defee lu rafet bu ko yàq quoi def na lu rafet ba ñëpp xam ko nag génn nag loxo yi rafet dem yoonam may loxo yi leer nañ non mais moo moo gën moo gën nga dem ba càgg di koy loxo yu ñëw quoi. kiy wax lan la euh, ku demoon wuti wuti la demoon bitim réew ñëw wala kan mooy wax du mbër xanaa mi ma yaakaar ndax Baye Peul licence moom ba ko gëjee am ak léegi ñaata at la def na six ans de. mais ci làmb laa bokk ba tey man su ma tey jii suñu équipe bu ñu amoon dem tey ci tuus bi si kanam si kanam laay taxaw man si leader Rock Énergie laa bokk man Rock Énergie def loo xamante ne kenn mënu ko dindi. moo tax damay am naa droit wax damay wax sama fekkoon amu droit wax dama wax ah, nga waxuma ci football waxuma ci basket ci làmb laa ndax ci làmb laa bokk ba tey bàyyi ma ko xëy na maa gëj a bëri ngi dox léegi mais dama ko gëj a su ma ko renouveler suba suba damay bëri. yan licence nga yor fi mu toll nii yoroo numérisé yi de. non man baaba yor sama licence nag baaba xaw ma nag waaye am nañ ci moom quoi loolu la wax hmm. euh, noo gisee grand contre petit ci làmb ndax fi mu toll nii dafa mel ni xale yi. màgg nañ yéeg nañ ci kaw seen grand lañ soxla ku ci mel ne Ama Baldé jël na Modou Lo gay Gaye Boy ñu ngi ko doon wax mm-hmm. euh, Garga Mbossé fan yee maa ngi ko seeti muy dëkk Lac de Guiers 2 euh, Sa Thiès doon wax ci Eumeu Sène noo gisee loolu eh, mooy yoon ñoom dañoo sonn ñoom ñoom di a tas si bëri sa nekk fii sa waay Balla Gaye Eumeu Sène wala Eumeu Sène Balla Gaye dem jël booy ñu bëri làmb ji ubbeeku mais loolu mooy yoon booy li def you know noonu la quoi man loolu moom ànd naa ci bu baax a baax dañoo war a bëre yooyu dañoo war a seen biir quoi. waaw gis làmb yooyu jaadu si bañ a jaadu mais ñoom mënuñu boo yooyu de. Ama Baldé booy euh, booy ñaa ak euh, Balla Gaye mënuñu leen ndax nit boo demee ba tolloon doo rek mënatoo sa waay te li ñuy daj la booy yi daj mënuñu leen de nañ leen jël ñu bëre moo gën dañuy daw rek nañ jël booy dañ def ni Modou Lo dañ jël booy bëre mooy yoon mais bëgg a bëre seen biir ba kañ sa waay dafa doy ku nekk bëri naa sa moom trois fois xaw quatre fois. nañ jël boo yu bëre loolu mooy yoon defee làmb ji mën a ubbeeku sax. booy ñaa Ama Bal euh, booy ñaa Balla gay 2 ñoom ñaar seen bëre ci Baye Paul ci sax xalaat ku koo jàpp ni moo ëpp doole ak kan moo dàq bëre. non booy ñaa Balla Gaye 2 loolu you know combat rek comme combat yi wax dëgg yàlla nag du ma ci du ci wax waa ndax ñoom xawma leen bu baax quoi dama gis dama leen gis nii ci làmb jëg mosuma leen gis sax bët ak bët. Mm. gis nii ci làmb rek mais wax dëgg yàlla combat la quoi. Mbossé la jëm. Garga mun na bëre Lac de Guiers moom bëgg na Lac de mu bëre moom loolu mooy yoon kaay ñoo war a bëre quoi ñoo ñoo. mais li mu def ci làmb toll na fi muy jëlee. Garga Mbossé def fi dara la fi def li fi Garga deful. mais mi daan Garga Mbossé Lac de Guiers 2 moo ko mu daan. ban daan ko daanee daanu ko arbitre bi jox victoire ñu wax na dëgg mais làmb gis nga Sénégal moo ko yàq quoi. Lac de Guiers bu daanoo Boy Niang ci géew lañ ko jox victoire bu dem ko après lañ ko jox victoire dafa may mais dafa bindoon recours. ci biir Sidi am na quatre appui te arbitre yi gisuñu ko woon. Lac war na rus loolu laa la wax Lac de Guiers buy boo ñaa ñu ko joxe victoire recours loolu defet la ci moom moom dafa war a xam loolu loolu mu ngi ko sax baaxoo man dama kay conseil hmm. loolu defet la ci moom dafa waroon jàpp boo ñaa duma ko daan yooyu damay victoire daanu ko de dañ jël garga bëri moom. waaw. Hmm. léegi fi mu toll nii ci làmb lan nga gis liñ ci war a changé ak liñ ci war a defar ndax bàyyi pël fi mu toll nii. làmb am na jéego bu ñu bëgg a jëm ci kaw. làmb daal lu ma gis ñu war a changé. mooy Alioune Sarr. moom moom nañ ko dàq mu jógee fii balaa leen di fekk ci kawam laa koy wax nga nit moom bu laa koy waxi sedd nga gën a dëgër bopp. ëllëgee loo ci fekk baaxul ci yow na na teel a dem na gars yi mën a defaraat làmb ji promoteurs yi ñëwaat gars yi wàññi affaire yi you know affaire a yomb daal làmb ji daal na dem quoi na fi jógee da nga bokk na ci ñi ko boloke bu jugoon rek làmb de boloke moo rey làmb ji loolu you know jarul nëbb nëbbal hmm. Alioune Sarr moo yàq lamb lu ko neex lay def yow mi na kër gi ma nekk fi def lu ma neex ba yàgg kër gi day dee Alioune Sarr war a dem jot na boo xee mën a lamb ji amu ci dara c'est pas vrai mi ngi ciy jot wërsëg bu baax na bàyyi keneen hmm. kan mooy loolu xanaa kon loolu ministre bi lañ koy wax. bu deful ndànk dañuy wàcc ci tali bi te loolu balaa moo am nag mu teel a dem quoi na bàyyi làmb ji comme que amu ci dara man de su ma yoree benn affaire ñu dégg moo hmm. ñëpp di ma ŋaañ. wallahi aji ma am ngoru bàyyi leen seen yëf am la maa gedd sax dem sama yoon du ma xaar sax ministre ma wàcce maay bàyyi ay démissionné dem yoonam nga ji moom làmb ji sonal nit ñi waay ah kenn day tàngal xool quoi dem ba mujj da ngay xam ne ay booy yi si war a jaru ñun man ma bëreeg ma ñàkk bëri laa yemale. man yàlla may dimbali. maa ngi Amérique dóor waar maa ngi yor sama famille nu ma leen war a yore yor sama jabar ak sama non samay sœur ak samay mag yi góor ñëpp maa yore. man ma bëre ma ñàkk man faale ma sax làmb gu ñu toll nii barke alxuraan suñu borom di ñëw ma sax ñëw ma benn mbër mu ci làmb yàlla may na ma lépp barke alxuraan maa ngi koy sant bu wér wallahi mhm. mhm. azim lépp lu góor yàlla am la ko may déggoo li ma la moo tax ma ciy wax bu nekk woon làmb du ma ci wax wallahi azim lépp si kaw suuf rek am naa ko e maa sant yàlla euh, la boo xamante ni Baye Pël moo wax que moom bëggul Alioune Sarr continuer mandat ah, hmm, moom loolu moom waxu baay Pël la ndax ñeneen ñëpp ñu ngi wax dégg ngeen suñu papa du Diagne Diecko la mu wax barki démb ah, dégg ngeen li nga xamante ne moom la booy ci moom gis nga nag mooy li gis nga nit boo lekk ci ndab bul fexe ba yëlëb sa loxo na lu jógal bu yëlëbee loxo bi dina metti moom de na teel dem daal bàyyi làmb ji ndax nit mënoo nekk fenn rek yow nga def affaire yu yaay jaame yooyu loolu neex ngay def hmm. yooyu amul ci àdduna yooyu dafa yooyu jeex man sama yoon newatu ci làmb mais damay dem mujjee damay mer sanction yi muy jël nii kon mu mujjee ci ñàkk jariñ dafa ma mettee mais booy bi xëpp gàllaaj bi booyam mais ñàkk jariñu kenn waru ko sanctionné yeen sanction yëpp ñu aj leen kenn du bëre loolu baaxul léegi fa bu doon am nay booy jël avance léegi nu ñuy def léegi Alioune Sarr damuy def moomul ji waay damay nit ñi jàmm balaa nag gaa yi nga waxee waxi naqari <laughs> loolu mu teel a dem quoi léegi wax nga ni Alioune Sarr mu dem léegi Alioune Sarr bu d'accordoon pour dem Baye Peul kan nga fiy teg. laa fi teg Kéba Kanté kooku waaju baax la. Kéba est na làmb. bëgg na làmb. mais mais ku baax la man xaw ma ko nag. 100 pour mu mos naa ko bari na Alioune Sarr mii nga bëgg a wàccee sax ku baax la. mos naa gis benn Alioune Sarr ku ku kenn weddul ku baax la. Mhm. baaxam kenn waxatu ko mais dafa doy dafa war a dem. Ah. bu demul nag mujjee bi ay saaka nga fiy jëlee wala yu kenn xamul balaa yooy da nga fekk rek na dem paay xale yi seen yëf ñu contrôle mais Keba Kandé mën na yor làmb defal la lu ne làmb xaw ma ko nag wax dëgg yàlla mosuma gëj naa ko gis depuis 2012 laa gëj a gis mais ku baax la naa ne bu ko joxoon CNG dina ko gérer quoi yeah Keba yow yeah mën na yi seetaan wasaare làmb gis ngeen kooku mooy Baye Peul mbër la boo xamante ni mu woon fële ci États-Unis d'Amérique mais ñoo na barki moon mondial euh, ñuy waxtaan ma ak moom waxtaan nañ ci lépp loo xamante ni mën naa yokk làmb waxtaan na ci président bi nga xamante ne mooy président CNG euh, muy suñu papa Alioune Sarr làmb nag wolof def ne te xel pusa mu réer la mag mun na koo far xale mun na koo far daa ji waxee xalaatam rek wax ko comme nim mu ko gisee pël ñu lay tàggoo di la jaajëfal bu baax a baax a baax ci ko nangu non yow sama yow xamante nañ avant lamb quoi you know an yëpp ñoo ko defandoo fii yee nuyu sama gars yi nekk New York yëpp bàyyi ma kenn ñoom Cheikh ay ñoom Jean ay ñoom Saliou sama gars daal ay ñoom Lamine 50 you know su ma limee mu jum gaa yëpp nekk New York maa leen nuyu baax a baax di nuyu seen kii bi waaye seen DG bi baabu nit ku baax la ñoom booy ATM yëpp maa leen bëggee di nuyu sama mag bu jigéen bi ma dëkkal fii you know ak sama jabar maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax baax ak sama goro yi leen sant di leen gërëm waaw ay jabar ju baax laa yàlla yàlla defal jàmm ak sama doom bu jigéen yàlla suñu borom defal leen jàmm ba ma koy muur di ko maye muy sëy ci kattan yàlla fekk eh, naa jabar ju baax la nekk depuis Paris non du ma sonal ci dara barke alxuraan maa ngi koy gërëm bu baax lan nga lay toggal yan plat nga gën a bëgg yu mu lay defal pël dégg naa da ngaa bëgg jël nag. waaw waaw damay lekk wax dëgg yàlla xam bu ñu nekkee du ñu am temps lekk nag mais fii moom bu ñu lekk bu a baax wax dëgg yàlla bi may toppatoo di ma toggal rek ceebu yàpp yi neex ay yaasa ginaar yu neex sax naa la invité. ban plat moo gën a nekk sa palaa préféré. man yaasa ginaar ñaa <laughs> la invité nga ñëw. jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi pël la woon ñu leen di tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo du ko